ñun moom daa bëgge mhm. bëggee gu tax yàlla di ko fayee loolu mais bëggeeloo Serigne Touba ak yonent bi fan la fan nan lañ ko mën a xaymaa nan lañ ko mën a expliquer wala moom am na lu mu ci wax mhm. waaw jërëjëf euh, bëgg yonent bi ci bëggoo saxaaba yi loolu diine du ko nangu mhm. suñ borom bi mu tàgg yonent bi léeg-léeg da ciy boole saxaaba yi muhammadun rasulullahi wala sina mooy ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi mu ne laqad radiyallahu anil mu moom anil mu'minina ñooy saxaaba yi mooy yàlla gërëm na way gëm ñi àndoon ak yonent bi yàlla tagg na muhammad rasulullah ak ñi àndoon ak moom moom yonent bi mu ne asxaab yi kan nujum sama saxaaba yëpp dañoo mel ne biddiw boo ci dëgmal rek da nga si ci yoone daal di tere ñuy indi xaajaloo dañuy tere sax ci diine xeeti euh, maanaam juyaloo gi amoon seen diggante ci wàllu histoire ñu di ko nettali wala di ci di ko waxtaane di ci am sa xalaat booy joxe loolu ñun nitu tasawuf ñun ñi dund tasawuf dañuy tere lool maanaam tasawuf day tere lool xañ na nag léeg-léeg ngay dégg diw di nettali kulóob Muawiya ak alul bayteeg nangam nangam ak di ci wax ba di ci xaabaabal loolu suñ bi jàngaluñu loolu sëñ Tuubaa li mu ñu jàngal mooy bëgg yonent bi ak saxaaba yi bi mu dëgmalee yonent bi di tagg di tagg di tagg di tagg ba mu yàgg sax dafa mel ne dafa xaar jëmm ñu naan xaadim waxal ci saxaaba yi mm-hmm. ayaa xaadimal muxtaar laa tan sa sax boobu mm-hmm. ee xaadimal muxtaar mm-hmm. wëlbatikul ci sahaaba yi mu jublu ci aboubacar wax ko loo xam ne kenn mësu ko dégg omar osmaan ali amaat xasiida goo xam ne ahlul badr la ko tudde tudd leen ci ñoom ñëpp xasiida ak raaya xasiida ak jësbu xasiida ak mawaahib xasiida goo tudd ubbi rek boo ca fekkee tagg yonent bi da nga ci fekkaat tagg saxaaba yi. wax na sax asax ba rasulallah inni xadimahu inni xadimahu waaw yéen ñi nga xam ne yéenay saxaaba yonent bi woo leen. man mii maay seen liggéeyaakoon. ni may liggéey yonent bi daa leen liggéeyal maa ngi leen xamal na leen ku bëgg la foo demee ci xam naa foofu laa koy tëjee <laughs> sëñ Basiir ngi ciy nettali nee na euh, sëñ Modou Lamine Diop Dagana ngi ciy nettali nee na sa euh, bu ne am na fa kër boo fa dee dem ak boo fa demul yëpp mm-hmm. yéefar bu ne it am nga fa kër mm-hmm. bu la yàlla jéggalee da nga jot sa kër mm-hmm. sawara yi noonu kër yi noonu lañ ko defaree nee sëriñ bi ci réy bëtam ak ni ko yàlla taw fii xale ba nga xam ne li muy wa laaj boroomam kenn mësu ko koo laaj li ko boroomam di jox mësu koo jox kenn mu laaj ko kër yi nga xam ne mooy kër gu yéefar yi nga xam ne ñii daa nar a gént ca yéefar yi seenug leer na mu ñaan ko boroomam boroomam may ko ko mu kër gi yëpp defaat naa ko addiyee saxaaba yi jox naa ko saxaaba yi addiyee boo liggéey man kooku fa mu teg saxaaba yi mhm. kawe na am na ci mag ñi ñoo xam ne seen tur yi ñu doon tuddee saxaaba yi sëriñ bi moo leen ci joxoon ndigal ñu tuddee saxaaba yi sëñ bi li boo doon wax xasida yi nga xam ne Aboubacar ma nga ca kenn xamunum toll xasida yi nga xam ne Omar ma nga ca kenn xamunum toll xasida yi nga xam ne Ousmane ma nga ca kenn xamunum toll xasida yi xam ne Ali ma nga ca kenn xamunum toll waxuma la saxaaba yi sax waaye soxna yi da ci doon ñëw kon ñun suñu dégg àgg ba ne kullun su jaaxo uh-huh. loxooti baaxo loxooti faaxo ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ. ñoom ñoom ñëpp. ñu doon topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñun suñu déggee ku naan Serigne tuubaat nee na bu bis pencee saaba yi dinañ rus ndax bu ñu gisee li ma tàgg yonent bi. waaw loolu dafa. loolu <laughs> ko ko wax day indi fu ko sëñ bi wax. xam xam naa yaakaar naa du indi mbind moom <laughs> du indi it mbindum sëñ Mourou Lamine wala mbindum sëñ Basiirou. wallaahi waaw. kon yooyu ay xumbal baas waaw maanaam daal boo boo boo bàyyee xel ci li mu wax. Mhm. Ah. pour ma résumer ko mu mën a jàll ci beneen buntu. Mhm. Euh, li ci gën a am solo te léeg-léeg euh, day mel ni sax ñiy jàngale. Mhm. ak di di di di di di mel ni ñuy xeeb cofeel gi nit ñuy sopp seeni kilifa. Euh, dañ koy dañ koy sax diingat ñoom dañuy wax ne boroom xam-xam yi ñoo doon yonent bi. ñoo doon yonent yi. loolu lu wér la du lu kenn sikk waaw léegi qul in kuntum tuhibbuna allah alquran la kenn du ko sikk fattabi'uni yi mhm. kon bu ñu toppee ñi leen donn mhm. eh, la leen ci la fekkoon ñee ca topp yonent bi loolu daf ñu ciy fekk bu baax ci bu wér kon alhamdulilahi rabbil alamin kon maanaam bëgg sëñ Tuubaa mhm. da nga ko ciy déggee boo ko bëggee te topp ko mën nga cee jële njëggalug yàlla ak yërmandeem kon daa am benn nit ak suufi gu mag. Mhm. goo xam ne mbokk yoo xam ne dañoo bokk ci beneen kuréel. Mhm. goo xam ne dañuy dinga tasawuf. Mhm. ak suufi boo xam ne dafa bëgg yonent bi di ko tagg. bañ na ko yow daal sa bëggal gi daa ëpp. dangaa def mu baalaxa. ci xobbu nabi sallallahu alayhi wa sallam. nee na mboolem tuuma yu ko mas a tuumaat rek tuuma jooju moo ko ci gën a neex. waaw maanaam liñ ko liñ ko mas a tuumaal ci àdduna rek. Mhm. wala lu ko waa kuréel boobu mas a wax rek. Mhm. wax bii moo ko ci gën a neex mooy da nga ëppal ci bëgg yonent bi. Mhm. da koy def mu baalax. nee na loolu mooy li ko ci dàqal. Oh. te nee li leen ciy tegal nag ne leen mu baalaxa. ci bëgg yonent bi moo gën ëppal ci bëgg leneen. ca doomu aadama yi ñu ngi leen gis ku ci nekk. kii di ëppal ci li muy bëggee. dafa dul ëpp nangam kii di ëpp ci ni muy bëggee nangam. gannaaw mooy comme ëppal ci ni ma bëggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mu ci tuuma jooju. gannaaw mooy buntu bi bila yàlla di soppee. defe naa buntu boobu mënoo ci ëppal. déedéet euh, te it wane ngay Serigne Touba. Mm-hmm. ni mu ni mu soppe yonent bi. cofeel gu ràññeeku. Mm-hmm. loolu defe naa ne indi euh, nga fi xasida yu bari ak bayit yu bari yoo xam ne. Mm-hmm. donn gi mu ko donn ci yeesal sunna. waaye itam. màndarga gi muy màndargal cofeelam ci di ko way ak di ko tagg ba mu mel ni xëy na ña jamonoonteeg moom mënoon a am kawaram. Mhm. mënoon a am ay ay daggiti weeyam mhm. ak lu mel ni li dal Sidna Bilal. Mhm. ndax sëñ bi bu daan bind sax turu yonent bi da koy màndargaal. loolu feeñ na ci. li nga xam ne mooy li mu waxoon ne. bu fekkoon ne biddéew yi doon nañ ko tiim. suuf si mu di ci dox rek danaa ko liggéeyal. ba am li ma bëgg ci moom. dëgg waaye mu mel ni dafa ubbi bunt boo xam ne. ci digganteem ak mbooloo mi. mooy buntu cofeel waaw cofeel mhm. sëñ ceddoo mhm. dafa bokk ci cislaay yi nga xam ne mhm. cislaay tariqa la tariqa yëpp nag ñoom dañuy wax sax naan al mahabba min usuli tariqa wala min arkaani tariqa loolu tariqa yi ñun ñi suñ bokki tariqa yëpp ndeysaan ñoo bokk loolu ak cofeel su fi yankee dañoo fës ci wàllu cofeel bëgg yàlla ak bëgg lépp lu dox seen diggante ak yàlla lépp luy seen wasiila ak yàlla rek dañuy bëgg loolu sëñ bi nag cofeel gi mu am ci yonent bi lu mel noonu bokk na ci li ko ci yàlla faye mooy mu may ko aw nit woo xam ne nii dañ koo bëggee nu mel noonu bëgg gi ñu bëgg sëñ Tuubaa yàllaa tax dox gi mu dox suñu diggante yàlla ak doon gi mu doon saa nafxin bi laa dara rin fees dell ak njariñ njariñ yoo xam ne nii benn loraa gi amu ci loolu moo tax ñu bëgg ko bëgg nag dafa am ay darajaat ak i mandarga. ak i mandarga. fi ne boo fi tegoon plat boo xam ne nii ñëpp ko bëgg. bëgg gi daa am ay dara ceebu jën boo ko fi tegoon. sëñ ceddo mi mën naa am ni mu koy bëggee. mooy raw ni ko sëñ Pape Sidi di bëgg. mën naa am. waaw. sëriñ bi it mbëggeel gi noonu la amee dara kenn ku nekk na nga koy jariñoo na muy manifesté woo ci yow. masalan Cheikh Ibrahima Fall. kenn du wax bëgg ca doo ko tudd. moom mbëggeel ga. mënuñu yaa ngi ma doon laaj ni ñu koy mu ne su koo xiyaas ci dara. Hmm. mbëggeel ga ëpp na mbëggeel gi bëgg giñ baaxoo xam ci lu lu lu lu lu nature loo xam ne mooy bëggeel liñ hmm. baaxoo xam ci mbëggeel. Hmm. da koo romb bëgg goo xam ne moom dutoo gisati doo déggati. bëgg goo xam ne ajoo ko ci dara luñ mën a gis ne lee moo tax ma bëgg. am na ñoo xam ne dañuy bëgg sëñ bi ngir ëllëg mu ràmm ma dugal ma àjjana. moom neen loolu daa daa daa suufe topput sëriñ bi bëggut sëriñ bi ngir àjjana. mbëggeel gi mënee su ko misaal ci dara bëgg sëriñ bi nag bëgg lépp sëriñ bi ba njabootu sëriñ bi xam ni Cheikh Ibrahima meloon ci sëriñ bi sëñ Fall jël soorool bi tudde ko lu baree bari ci yoon yi ciy jagle yoo xam ne nii fu ñu koy tuddee xel yi day dem ci moom lu ma ne sa ci indi misaal Cheikh Ibrahima Fall ñun dañuy dañ koy lim mhm. ci mag ñi Cheikh Ibrahima waaw waaye dañuy fàtte wala boog ñiy jàngale dañuy fàtte ne Cheikh Ibra bi muy ñëw ci sëñ bi. Mhm. ñaar fukk ak juróom ñaar la indi. Mhm.